teeru donga yi eh. wala yatamakkanu li ahadin an yajmaa alfayni wasfayni ilaa bil hiili sayyi fal ilmu wa dalilu ala al ixlaasi wa dalilu ala mutaabaati mu ne jëf mel noonu kenn du ko mën a boole yaari yooyu mu jub te sell te mu jëf ko ngir yàlla te mu tegu ci sunna yonent bi ndax rek da am xam-xam bu yër te xam-xam bu yër mooy tegtal ni ñuy xam-xam bu yër mooy tegtal ni ñuy toppee yonent bi kon xam-xam boobu ana ban xam-xam moo gën a wér ban xam a a sëriñ Tuubaa mi ni day bind waaye li ñuy bind kat jëlewu ko ci ay muslim ak ci Buxaari yu naa wér mën naa bañ a wér muslim ak Buxaari yu ruya alhim laa di kasar di riwaaya bal innahu nuurun ma addiraya ne ruya an fulaan an fulaan diw soloo na ko diw soloo na ko sëriñ bi ne bi ngil du xam de jeexal sa dund la waaw diw soloo na ko diw soloo na ko jël nee du xam-xam de bal noonu lan mooy xam-xam inna woo nuurun ma addiraaya nuuru diraaya gis minallaahi xam-xam bu jóge ci yàlla direct dara waxu ko seytaane dugg ca nekk ni dugg ca njuum te dugg ca fen dugg ca naas yëq dugg ca nga waxee ko na ko yàlla waxee loolaa di xam-xam mu ne ak tubu dinaa bind man Sëriñ Tuubaa naaqi lan mbir mu may aji toxale mi ne law i ci la ul maxsuus wa min xale mi yëpp ca xëli ma ngay daw wa fii uróofi lam amin saam alal doo ko topp ba dara luy dañ di nekk loo bind dëgg na dégg lu bii mu naw warun loolu geneen wax la loolu wax bu ma ci duggee dag may déw yi xam murit dañoo mos waaye gën leen maa mos kooku mu bii mu naw warun bi nuurin wax yi mbalka leer ma ñu dëggal woon yàlla jëw mu sëdd sëdd mënta jeex yàlla ne ko da nga am borom ñaar rek ci war a naan rasul ak yow muy maxdum ñaama yow nga waxe nga waxe na yaa waaye nag man mënut a suñ toll laa bu yàgg nañu maraam ca ba. vingt-deux kilomètres di daaru mu si doo gis jigéen yaa rootal sa bopp yaa toggal sa bopp di fóotal sa bopp di yor tiir yi bala ngeen naa di ngeen waye waye bi seen baat yi mun laat waa sil kutu bi loolu la waajo ne isa katabtu sassa arsul baaxi wa tabbahat malaaiku tibaaxi sëriñ tuwaa dañu ne defe ni fii laay dindee ni déedéet ñu ne ah kay mu ne déedéet kenn mënu maa fekk may bind bindiwu ma fii ca doon araf laay toog malaayika yi sàbbaa ba mu neex malaayika yi woy ba mu neex araf jaay ba mu neex kunti yi jaay mu neex ma door a bind yàlla mu ne kon nag ñun ne ah, mun mun laa turaasil kutubi bal jaani li man xanaani bi kutubi mun nee sama xam-xam man Sëriñ Tuubaa mun moom xam-xam la bu wér boo xam ne laa turaasil ko gis mukk fil kutubi ci téere yi ñu ne ko fu mu jógee nag mu ne bal mi fi nekk bal mi fi nekk jaani dikke na ma ne ko jógee mi man te dafa ne amaani aar na ma dikk naa ma bindee lii maître bi ma jàngal di ma dikke may bind mooy yàlla kon ñëw ci téere yi ca yàlla laa hmm? wax na ko nag nee na ko nee wax na ko lu yàgg ah. min ha tawaqufu an xawlin wa an hamalin atta yarawu sayyi'an bi saadati loolu la binda min ha bokk na ci tawaqufu taxawlu téyel sa kalima téyel sa xel téyel sa xam-xam téyel sa xalaat an xawlin wal wax wa an amalin ak jëf bul wax bul jëf doo wax doo jëf atta yarawu ba ñu gis ko sayyi'an lu wér bi sa sayyi'an muy aji wér bi saadaat ci ay témoin nee na da nga koy topp nag ba dem la un mahfuz gis na ko fa yàlla bind nga gis kalima ga na ma ko doole nga gis malaayika yi kuréel yi nañ ko seedee te moom mu naan yëjëdu ni hinde malikin muxtadir kullu walin li jihaani yëptadir yàlla ne fii maqaadi sidqin hinde malikin muxtadirin ci suratu xamar ca mu jub saar ba maqaadi sidqin la seet ba tudd malikun muxtadiru la fa yàlla tudde boppam nee na adratu yaqin ne la tudd ne adratul xutsi leer ga fa malayka làq moom la malayka yi malayka yi kuróob yoon ñuy dund ci leer yaa sal jalaali wal ikraam ne sëriñ bi ne la ñuy wax nee na melaw tan lañ mun na taxaani yal mux nii falastu at mahu wala si waa humri yan foo zaman nee na taxaani yan naanal na ma al mux nii aji woomal ji dul jeexal falastu at mahu du ma mar ñëpp wayan woo dina jublu sama aw aw mar tey ëllëg li si waa humri jëm si sama dund sëriñ Tuubaa nee du ma mar tey du ma mar ëllëg te nee nag mar doo jëm ci man du ma jëm ci yow waaw nit du deewaale maru sukuraat mukk waaw loo gaaw gaaw lu ma la waxee gën a gaaw ata abdu bi xadri ma ataw sëriñ bee ko wax naar yi ca gànnaar ñu ne ko dañoo dégg nga ni nit bu faatu buñ dee dugal ci bàmmeel ñëpp bu ñu faatoo ndowoon bàmmeel buñ dem fekk ci ahmadul mbàkk yi mu ne noo ko wax de boo déggoo suñ bee nga xëy bokku ci nit ñi noo ko wax mu ne noo ko wax de ata abdu bi xadri ma ataw kamalakil mawti damay def ni bu ma neex ni malakal mawti waaw lu mën ci toll nag sama jëmm toll na يقول لي المقيد في تعاني وفي سرابي افضل الانهام جي ما دام نول بي دا يام فيلو نول بو ريغي دا نا ام كول با ام فور دا داي ليك بو با دا كريم بي نانا ليك ني بسم الله بركه سيرن توا ان نان بسم الله بركه سيرن توا مو جيلي بو ليو كارال نيو تولو تيال maanaam yaquudu na wama li ñu yal ma almuqiitu ci turu yàlla yi la aji dund la ji fii taxaami ci sama ñam wa fi saraabi yi ak naan ak dalal inhaami ji xéwal boo sama lekk ak sama naan ji xéwal lañ ci amee gis nga ma bind ci yëkkam ni man araada an yasriba saaya fal yaqul alhamdulillahi la fi saqaana xayra saraari wal hidaa wa qaala mu ne attaaya doom sufi barakatun laa tam wa munkun laa yam wa sukrun bila sikaayatin wa salaamatun bila ak fa ci bop nit ñi maro ataya ak sa katum nana am ci nak barki bu ñu ngeen ak ngor bu dootul fulatu ak mucc bu dootul am ay ak sant du do jambat dara day suñu tuwa rek man lolu way jëw ataya ngi de ataya jaay ataya jaay ma hay ah ma ne feeñ naa bu yàgg yàgg du gën lool akram tan yi ikraama man laa yajuzu an mumkin maa wa hidaaya hajatu sëñ bi ne akram tan yi teral nga ma yow yàlla ikraama man teral ne ko waxee laa yajuzu lu wax mukk an mumkin wala lu maa nekk sëñ Tuubaa nee na teral nañ ma te yàlla yegg man ci teraanga yi dara tawuma yàlla teral naa ba man ci teraanga yi dara tawuma war ñu daal samay noonu nag xajatu lott nañu yàlla teral naa ba yegg man ci teranga yi maanaam dara tëwuma kon nag képp ku ma noonu lott nga mu ne nag xanitu billahi anil arbaabi wa bi muhammad anil asbaabi xataa al xalaaqa baynahu wa bayna al xalaayiqi li taxliyatil qalbi an xayrillahi taala قال أقسمت بالله إني للنبي أبدا خير وابن وما آباه ياباه أقسم إلى الله إنسان التي ربى فؤاده وجل الصدها عن قلبه وغاز بنور الهبورية والاقتصاد به الربوبية وسلم نفسه لربه فمن رضا سرور القلب في المقدور في جميع الأمور وطيب النفس هذه في كل حال وطمأنينة القلب عند كل مفصل ومع من أمور الدنيا وقناعة الأبد بكل شيء واختباته بقسمة الرب وفرعه بقيام مولاه عليه خار سكرته إذ قسمي بقسمة الماء سنيدا قسمة للعالم ساقطنati fil alal no fakka wala ni loolu la bind ci jëlbul xulóob ba day murid yi firee يا ko ndax jëf bi moom alxuraan ñoo tolloo ba day murid yi ko sëriñ bi ba tey ñu ngi leen cee waxtaan waaye mënaguñu koo firi man doon naa fi jo jéem a sot dugg ci alhamdulilah xaq ñu gën ko amul pigin nga ba sama sot far ba genn wàll bi jéem moo tax ma dem xam ni sëriñ bi moom moomam firi kenn mënu koo laal. ma dem de. sëriñ bi dafa wax ni. amiin amiin amiin amiin ak dégloo aqsamtu billahi inni li naba li nabi abadan xilun wama wahibbun wama aadaahu aqsamtu billahi aqsamtu billahi inni li nabi abadan xilun wahibbun wama آباه ياباه ترى قصائد التوحيد لمالكنا شواهد الحق من هذا لمن باه dégg nga mu ngay tàggee noonu sëñ Tuubaa dégg nga mu ngay tàggee nag noonu sëñ Tuubaa man bële ma ko yow Omar ko ci wàll. Faraa kasaayid tawhiidi li maalikina sawaahidal haqq man haadan li man baaxoo ndax dafa am ba man am ma durri aano man xaaru hmm? ndax waaw ramal ilaahu lazi laa say ayu gisoo sax yi wa man am ma durri aano man aaw tàgge bàngoo ndax lu tax man xaatal li man baaxoo balaa di nga gis xasaayida taw yii nii sama xasida yi wéet gi sax wéet gi sax mi ngi dikk maa ngi wax di tagg yàlla di tagg yàlla ci ay jëfam maa ngi dikk ci mën ci ci mi nan àq ci sëriñ bi tagg yàlla ci jëfam ba yàgg mu xeeb loola di tagg yàlla ci meloom ba yàgg mu xeeb yàlla mu xeeb loolu di tagg yàlla nag ci jëmm ja ba yàgg mu xeeb loola ba yàgg muy moom muy moom waaw mi ngi ci kanam tuuti bu fekkee yegg naa ci waaw bu fekkee yegg ci naa ci nga maanaam mu ni taraa di nga gis xasaayida tawhid yi sama xasiday tawhid yi li maaliki naa ñeen sunu borom muy yàlla tawaahidal man xaatan li man baaxoo man xaatan li man baaxoo ñooñu ñooy ñooy ñooy ñooy ñi nga xam ni ñooy melal puugare ña nga xam ni puugare woo nañ ca yàlla maanaam nañ puugare wu ca yàlla li man baaxoo nañ puugare wu ña ñu tàgg fa yàlla ñuy yonent yee bu ma yëg sama tàgg maa ngi murid ñoom ñëpp man sox kenn du leen dana bu yëg wax na ko bu yàgg baaxaa bi allahu kiraamal qurra wa bi baqaayi yéen nabiya sarra baaxaa puugare woo bee ci man allahu yàlla ñu ngi puugare woo al kiraamal qurra sang yu rafet ya te leer mu yonent ya yàlla danaa kii bi tuddul woon ab yonent ndax laa nu boobu tabata rasulillahi lañu waxan te weddiwul wax ja tudd woon ab yonent te tudd woon wàlliyu te tudd woon sëriñ xaadim rasul la tudd te am na lu yonent yi amul yëkkati ko ne ndax ku mel nii am na ci yéen mais kenn du yëngu waaw sëriñ bi wax bu la ñorul ma dem feneen bokk sëriñ bi wax na ko ci téere bi wax laylatul xadar rakkatu jawaadal hilmi wa diini mun ñi gen di joyi saf yi inaas yow ma yow asadu nee toor bu ñoree dañu koy góob rakkatu jaabal naa jawaadal hilmi naaru góoru xam-xam wa diine ak diine mun si jan may egg itam si ngirum sunna si safi safi naas si ngirum kii rang nit yow ma yu asuru bis ba ñuy góob bu àjjana teewee sawara teew yàlla teew ay malaayika yam teew siraat teew nee na bis penc taxaw nee na keroog bu naaru góor ak xam-xam ak jëf di sell ak gëm ak rafetal ak ngërëmul yàlla bu doon fat maay takk war ca kaw dajal kenn du yëngu moo tax mu ne la aqsamtu billah billahi waat naa ci màggu yàlla na inni naka man xillun xarit laa waxi bunte toppee laa li nabi ñeel yonent bi abadan ba faaw nag wa maa aabaahu yaa baahu lu ma bañ yonent bi wan ko ginnaaw du ko seet mukk jëf ju ma wan ginnaaw yonent bi du ko seet bi seet yàlla du ko seet kon nag bañ suñ tuwaa musiba la hmm? sëñ nga xam ne lan mooy ngiñ dafa giñ ba noppi waat aqsamtu ngiñ la billahi nag waat la dafa giñ waat ni maay xarit bi te yonent bi noonu yonent bi noonu na Abubakar ñu ne ko nahnu ah, ahbaabuka nu ne nooy say soppe ma ne laa antum ah, ashaabi wa lastum bi ahbaabi yéen kay yéenay samay saal waaye nag du may samay soppe mu joxe misaal di ko misaal di ko misaal di ko misaal di ko misaal ba misaal ma joxe saraa ma ne kookaa mooy sama xarit nag lu mu dugg ma dugg ci waaye yéen samay saaroon yéen ah ah xam nga waxtaan waxtaan sëñ lu day jàdd muy dañ lay jàdd loo bëgg na ne sarax beneen foofu day jeexal sax day day day programme ba maanaam dañ lay def li ñuy wax hors sujet daal projet Maodo yi dañ lay def dañ lay génne ca fa nga jëman sax gaa yi gaa yi kiimaan nañ murid maa baa dem lem la foo te loxo mu neex rek <laughs> waaw sëriñ bi laa ne jalaa maanaam sëriñ bi dafa wéeru ci yàlla mm-hmm. ne saaw liggéey dafa rafet ndax danaa wéeru sama ginnaaw ci yàlla dër sama dënd ci yàlla teg samay tànk ci kaw yàlla gét sama bopp ci yàlla nag dal di tërbiyee sama xol nag xacc ko maa caaxaan ma set ci wit mësu ko laal aar naa ko di ko jigéen ma xuus ci géej gi njaamu nag géej gi njaamu ak i jagleel dugg ci boobu yëtu ndooyi nag dal di koy jébbal sama bopp nag dal di nangu ab dogalam nag dal di sama xol ci moom nag dal di jébbal sama mbir ci moom nag dalal sama xel dalal sama yaram dugg ci biir moom ci moom ci biir leer yàlla yi ci yëpp melo dal dal boo xëy dafa ànd ak tumaani natu ni nga rëmm boo dee julli nga xëy doo rëcc gi ne noonu laa def ci kippaar bi yàlla nee na tiit du ma jàq du ma mer du ma yëngatu ngir daray adduna mënoo maa defal lu neex ba ma bég mënoo maa def lu métti ba ma jàq ndax maa ngi suuf rëkk ci yàlla noonu ma ànd ak doylu goo xam ne gi ci métti mbir lay doon ànd ñee goo xam ne ñeetaan naa sama bopp ci cër ba may séddee loola may na ko nee mbigam ñu ma am ci taxaw ci ndigali boromam yi nee mu de ko sant nag mu ni nekk nekk nekk ci mbigi ci ndigali boromam yi ak nekk gi mu nekk ci li ñu tuddee napp ci keneen ak nekk gi mu ci li ak nekk gi mu ci keneen ak ay métit ci keneen te moom mu di mbég ci moom nee na génne gi ñu ko génne a jóg nekk ci moom ma jekki ba yàgg ñu damay ñaan yàlla mu tegal ma natt ci doon saa xidmatin ma mbir mu may borom liggéey fi ne xala mi ci lu biir loo ñeel ko waaye nag wa sàkka daaj la wala mission bi jëng dara gàllankoor ma murid yi ba àjjana loolu lañ ma teye moo tax ma sawar ci liggéey bi kon taxaw gi mu taxaw ci sant boromam daa iman yu jaddidul xaala wal xidmata min huboobi nasibil mahabbati lati يضطر الهائم بها على خدمة مولاه أو عن خدمة مولاه التي يرى بها سعادته وزيادة لذته لا أثر له في تعب ورعبة ورغبة إحسانا وإجلالا وفرحا وابتعادا يقود من القرآن والأديث ما دونه تفسير وتأديث sëñ bi ni moom moom sëñ Tuubaa nee na sës gi mu sës rëkk rëkk rëkk rëkk si yàlla di liggéeyal yonent bi nee na day yeesal aw meloom di yeesal daal di sawaraat ci liggéey bi yeesalaat ak laxasaayam nag seetliwaat ak laxasaayam nee na loolu wàll naa ko murid yi murid yëpp lu ma def ren boo négee bu ñu soññee mooy gën a takku nee na man ci man la ñu ko doon teg ko ci moom la ñu ko doon ma nee na texe gi mu ci gis ak dolli fu bànneex gi mu ci gis nee tax na yëgul ak coono te yëgul am tiit te yëgul ak xemmam ndax màggal yàlla ak koyal yàlla ak dig ci yàlla ak taaru ci yàlla nee na bari na ku naa damaa bëgg yàlla dangaa bëgg leen yàlla man bëggum leenu ma yàlla dama koo bëgg nee na ma yàlla dama koo bëgg dégg nga wax bi murid yi bëgg nee na ñu ma dañ maa bëgg dégg nga wax bi bëgg moo wóor almarahu mahamman ahaba ñu da këm bëgg waaga dañu yonent bi xoolal ba toog jóg ñu ko kañ la bis pénc di taxaw yonent bi waare waare wu tàng yonent ngor si jóg fudd ñu ko kañ la bis pénc di taxaw matti taqumu saa kañ la bis pénc di taxaw mu ne ko maasata ayata atata sal anisa yaa fulaamu bi yow gën a taxaw ndax da ngaa jekk mu ne ko jekk naa bu yàgg mu a ko loo denc mu ne ko bëgg la mu doon lëngu ko ni almar maa man ahaba ak sama yëfu jami ni ko kenn bëgg maa yow ba àddana mur ñi mur ñi a na dañoo bëgg suñ tuwaa rek dégg ko yoon waa moom bëgg rek yàquut li ñu aminu mu na ma loo xam ne firi ak hadis mënu koo xamle ne boo bëggee am xam-xam da ngay jël ci sama waaye di yër saraay alxuraan ak di ko jéem a firi ak yër téere hadis ak di ko jéem a firi nee na foofu ngay nekk di fenal yàlla murid yi raw la waaw murid naa lay raw ndax yaquudu na dina womat na waaye day dikk di dikk rek dina womat lii ñeel ma alquraan alquraan wal hadiisu ak hadiis maa loo xam ne doonoo yées na ko tafsiru am firi wa hadiisu ak hadiis nee na li ma alquraan xamal ci boppam ak li ma hadiis xamal ci boppam ne ñetti wax yëpp maa ngi ko jàng ci firi yàlla door a ñëw ci yéen jaam yàlla yi ñetti wax moo am alquraan ak hadiis ak hadiisu sharif hadiisu sharif ak hadiisul qudsi jenn wax la ndax ci kenn la soo alquran waxi yàlla kon alquran mooy li jibril indi ci yonente bi ci ñaar fukki at ak di ko ko jox par morta wala yaatuunaka bi masalin illaa jiinaaka bil haqq wa ahsana tafsiran hadis nag mooy li yonente bi déggal boppam ci alquran di ko ko firee mooy hadisu sharif hadisul qudsi nag mooy la yàlla waxal yonente bi direct ba mu riñaane dem ca moom day ñetti wax yu bokkul sëñ bi ne ñetti wax yëpp ci biir door a wàcc kon li ma xam kuy mu ne saaxal yow mun si nu xayra dikri wa kaana lil baax yi bi xayri makri maanaam ci wàcc ngën ji tudd te mooy alxuraan jox na ma jox na ma màngal na ma ngën ji alxuraan jox nañ ma ko man Sëriñ Tuubaa mbootum alxuraan moo loo nañ ma ko dafa wax ne saax nañ ko alxuraan mu bañ ñu may ko alxuraan mu bañ ñu jaay ko alxuraan mu jënd ku jënd yaa moom yaa man jaxal te lil kitaaba saddaxa hadiyatan wa bi nafaxa loolu la wax ci téere ba mu ne yàlla maanaam wajahli ma xaaba an amsali baaxin karimun jàlla han misaali moo waxaat ci beneen téen ni jasaaw man jàlla anil misaali lii xaaba ma xaaba anil amsaali kii mi ngi ko wax ci minanul baax yi kii mi ko wax ci benen téere bu ñu wax wakaana aqan alayna nasrul muminin wakaana aqan téeméeri yooyu képp la ak juróom fukk di juróom ñaari waxtu yi di juróom ñaari fan yi di fukki waxtu yeeg ñaar di juróomi waxtu yi julli julli yi juróom di jëfi tey ëllëg lépp la dugal ci biir boo ko jàngee lépp dugg di fajut aajo tey di démb ak tey ma woy ak tey mi teew ak ëllëg mi nga xamul mais na defar démb ma nga weesu yéwénal tey mi nga nekk fàggu ëllëg mi di këgul loolu lépp def na ko ci wakkaanaa xam ci téeméeri woy ak juróom fukk pour leeral ko dafay yaatu lool waaye noonu la mam te la wax ni jëfaaw man tey xeexey jàll ëpp na anil misaal ci ñu koy misaal di ko gam-gam léegi dara xaada ba mat na lii yel ma maa loo xëy ne fàddu na anil amsaali wala si kem bi ni feeg gisu leen ko tolloog yàlla du ngeen gis ko tolloog man loo ci léegi gis ngeen ko tolloog yàlla du ngeen gis ku tolloog man. mën naa ko wax de. waaw. ma xool fu wax bi toll. quatre heures vingt. maanaam nag kon nag sëriñ bi dafa wax ni. min al jaaxal xaqu lil xaqi fii saabi bi xaqin mubiinin laa yu aani min saabi kon loolu mooy waxtaan bi. waaw hmm? la. Hmm. amiin amiin. lu ko waral mu ni xaqi wal xaqu diinuna bi iqdaami si rusul xadaa kulla mursidi du noonu la mu tekkeni ilaa xayrina tan xool mafasidu kulluha wa tan xoolana al xayratu min xayri munjidi loolu la ko teg tekke dabatu li xayrillaahi maalam yellex bii wa dabba li xayri dahra mawlaaya hussadi sëñ Thierno Ndoye ñoom am nañu fayda fu ñu jàng jàng ko fa way saa jaawasa saariku zulumaati l jismaaniya وتجليات الروحانية يده قدمه في بساط قدم الوجود الذي من كمال أسحاقه وعدم تلونه تصهر الألوان وتتدن طريق سلوكه بهذا التفصيل أولها بدايات ثم أبواب ثم معاملات ثم أخلاق ثم أصول ثم أودية ثم أهوال ثم ثم ولاية ثم حقائق ثم نهايات فهذه أسرة في كل منزلة منها عشرة منازل على هذا ترتيب كون فكي في جيب لو فكي في بابا لي ميتينر لي في لا تك سماتان في يا الله من الحق جاء الحق فكي في لا في بلا فكي في جبير في من الحق جاء الحق نينا إذا جاء وزن دين جيجنا السالف سالف كم هذه هذه سالي وري مذا لن يكون تنكي kam haali haali saali wari musa dañ koy teunké juroom ñaari jéego nga taxaw muy ben mu juróom ñaari jéego nga taxaw muy ben juroom ñaari jéego nga taxaw muy ben ba mu juroom ñaari juroom ñaar di 49 ñen fukki pey juroom ñen né nga taxaw nak toora tuddu saliku ñu na soobu nga ci yoonu jëm ci yalla kat waye dema ko fenn nak waaw tax fi dafa mu nek da sori ben waye non na dafa xam yalla nanan mom dafa yegg ci yalla jëm ci cheikh ibra nak jëm ci suñu tuwa fekk cheikh ibra ci buntu bi mu deur né nga def fenn mu fenn wax fenn wax na bopam cheikh ibra bu yag ñetti ni ko ah man Fall yow mi yegg ci yàlla kaay nag nu wax la yoonu jëm ci yàlla te waxum Cheikh Ibra dara daa jëm ci sëriñ bi daa yegg ci yàlla bay diine ci sëriñ bi ñëw fekk Lamp Fall ci bunt bi kii niit yoon bala ñoo yegg ci sëriñ bi mu ne ko ah yow mi ni yegg nga ci yàlla kaay na woon la yoonu jëm ci yàlla yow xamul ko sax yoon <laughs> ah, ah? mu ne ko xamul ko sax yoon mu ne ko ah, boo jëmee ci yàlla ay natt di lay karru bi sa kanam boo wankee yàlla dem mbir bu ñu natt yoon jeex tag ay ni jàll ci sa kanam boo bigi ci xiwal yàlla dem ne boo noppee ci loolu ah boo muccee ci loolu nee na adduna jàll ci sa kanam ba nee na boo ci amee mel ni mbégte yàlla dem ne boo noppee ci loolu sawar nañ jàll ci sa boo jàqee ci moom la nga ragal ko yàlla dem ne boo noppee ci loolu mucc yooyu yëpp àjjana jàll ci sama ba boo bigi ci moom ko yàlla dem ñu la bëgguma nga bëggal mais boo muccee ci yooyu yëpp nañ jox la mbandi mi la yoon bi jëm ci yàlla bii nga door a ndax ndax waaw day yegg suuf yëpp ci yàlla loolu la waaw day yegg suuf yëpp ci yàlla am na yëpp ci yàlla waaw ah yëpp ma yëpp ci yàlla de waaw ah. وهودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار li nga wax loolu la tollool ci alxuraan waaye ma jàddee foofu ba tey minal àq déedéet dégg wax bi waaw waaw suñ tuwaa gii nag suñ tuwaa rek koy waaja nag xam nga suñ mag bi dafa doy waar boo ko seetee yëskuruuna laaha kooku jëfi làmmiñ la xiyaaman wa xuudan kooku jëfi réam la wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ardi kooku jëfi xol la sëriñ tuba sëriñ tuba ne seex de dara desu fi foofu la dégg wax de ama dawaamu dikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru moo xam da ngay junni ba sa tuba yëpp dagg wala loo am paase ko dem màkk wala loo am joxe ko farat wala loo am dimbimeeku wala loo am def ko ay sarax wala ay addiya wala loo mën di def daal sëriñ Tuubaa nekk ne ci laa ilaaha illallaah moo la gën moo la man moo la ëpp bis fii ci aw yow Thank you. xewlaan ci jëwal yoo xam ne lu taxal ba ñen jëw nañ jëw nañ jëw nañ yoo xam ne ko addu taxal addu addu jëriñ أنا وخادني من بالله قلبي ولساني ويدي وكان لي وخادني من بالله قلبي ولساني وكان لي وخادني من الخير بالله قلبي ولساني ويدي وكان هو خادم لله قلبي ولساني ويدي وكان لي وخادمي بلد يدي إباته نهدنا نهاية ليدنا كد ولا سكاية إسرائيل بفضله ما أسرع الله أسرع يا الله داري واجهت اليوم وبعد اليوم بمعنى خير فقد كل الأمي محمد صلى عليه بالسلام ربي أن يوصل عبد الكلام محمد صلى عليه بالسلام ربي أن يوصل عبد الكلام محمد صلى عليه بالسلام ربي أن يوصل عبد الكلام علم الله بكون أحمد سيد كل سيد هم نداء الصدق والتبليغ والأمانة لأحمد المختار والفتان لأحمد المختار والفتان صاحب الماء والإخل الكرام بعفي وقابل له المرام وادي لو تآثار للبشر وسلم لله نهيا ببشر صدور والكتب والأملاكما اليوم والقدر نور عالمه أيقن بأن الله خالق السماء الكون لله وما الكون الكون لله فما الكون هوى الكون لله وما الكون هوى أتاني الكتاب ربي سوقدم ما بقى سمن ما قدم من صنع أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمة بدا نفيت ظنه بأني القديم بما ونال مثلي كل قديم لها عبد الله قادم الرسول نعم. دنيا واخرى عصمه الخير لا تعبد الله